bi gem gaagaga moom gem bi gaag ñooy ni arène nationale taxawal naa naan mag naa ko def loolu flow waaw moo leen di fay dañ la gis sa bi sa seeg Ndiaga c'est mon frère ndax su ko géejawaay man géejawaay laa yoroo donc Ndiaga nekk déjà artiste boo xam ne dama ko fi naturellement quoi et depuis le début toujours été des frères dañuy demalante su ma amee lu may def damay ñëw su ma amee lu may def damay dem tey yàgg bi leen ne dëggee gisuñu ma war na jaaxal nit donc c' est tout à fait normal tey ma def teew fii nii parce que Ngaaka Blindé c' est mon frère mais un vrai frère pour man man bu ma saa wooyee Ngaaka Blindé man Baba laa ko wooyee parce que man wallaay mon frère wallaay. mais Thiel du dara. jaar jaar la ba ñu bëri ñu bëri ay ndaanaan ay kilifa la jël moom moom rek lay porté ma li ma koy wax mooy yoonam ngi yoonam c'est son destin tey jii il n'a pas il n'a pas lâché prise quoi c'est pas c'est pas parce que dafa génn jël rek dafa dafa bàyyi mu set au contraire lii comeback la avant muy dugg jël dafa loolu lii dafa génn ñëw def challenge bi ñëpp wuyu si ko et nous on est ses

ah carrière am mooy ma wax rek liggéey persévérance gëm sa bopp bàyyi yenn a yi avancé góor la te moom am si tey jii nii wane ko quoi génn na jeel mu ngi nii ak arène nationale suba fa la jëm feneen donc sant yàlla quoi moom mu si yoon bu baax bi la si nekk rek ba ñu yàkkamti tegu si yoon bi yàlla di teewale sama li mu am ni yàlla su yàlla ko ci ba pare mu am lu ko ragal ci après.